sawar naa trop pour ñëw ci juróomi ponk bi parce que livre bi daanaka bind naa ko juróomi at euh, gëstu naa liggéey fukki at ak engagement bu mat presque vingt ans ponk bi ci njëkk nag dañ ci lajj depuis indépendance mooy l'industrialisation Sénégal li muy jéegaan yi na lool am na lu bëri loo xam ne war nañ ko mën liggéey suñu réew loolu nag état bi la ñuy xaar mu nekk locomotive Sénégal nag koom bi daanaka ay doxandeem ñoo ko téye te loolu dafa war a dakk à partir de 2024 incha allah ñaareelu ponk bi mooy administration euh, dëgg la ñun dañoo proposer un service public fort askan bi képp ku uti kayit da ngay stressé justice euh, état civil lépp la soxla licence formalité jafe-jafe ngay am. loolu nag dañoo bëgg mu jeex nañu pour cela dañuy créer un ministère des données qui va prendre en charge ces questions de modernisation dañu war am des corps de contrôle am une transparence ñun ñoo proposé ne bépp budget état quel que soit le ministère nañ ko def en ligne traduire ko ci ay làkk nga xam ne dañ naan ah ministère bi kat jox nañ ko 15 milliards 15 milliards yi fan la jaar dërëm bu ci nekk ñu bind ko en ligne am na dëkk yu koy def ne bii kat fii la jaar lii lañ ci def mu leer ci askan bi ñetteel bi nag mooy aménagement du territoire Sénégal tey bëri na ay village bëri na département bëri na ay région doxul demul pour une raison simple idée baa nga fa xalaat baa nga fa mais amuñ koom pour doxal ko amuñ ay dotation ñu wax nag ne jot nañu am 5 méga région région bu ci nekk équilibré ñu jox ko un budget important public mu am assemblée territoriale dénk jeunes yi seen région ñu tabax ko 500 milliards la ñu estimé possibilité à partir de 2024 ci fukki at en moyenne dana nekk 5000 milliards gëm naa ne méga région ñu jox 5000 milliards en 10 ans da nga am sa hôpital am say entreprise am say district te xale yi duñu demati fenn te suñu soxlaa tamit visa bi dafay yomb parce que dañuy nekk des vrais acteurs de développement la question du chômage la question de l'emploi des jeunes la question de la qualification et surtout la question de la dignité le quatrième point mooy les accès universels ñu ngi koy wax ñëpp dund fii li xew yéen taskati xibaar yi yéen ñu ciy jàngal ci loolu yéen a wax li xew l'hôpital yi faj mi urgence bi problème bu dul jeex la depuis longtemps jot na nag ñu garantir la santé l'éducation la formation am na solo lool et la sécurité aujourd'hui le dernier point c'est la diplomatie am nañ pétrole am nañ gaz nañ uti xam-xam uti collaborateur yoo xam ne suñu produit Sénégal dañ ko jaay sans problème tubaab yi fi ñëw ak doxalin bi fi ñëw di ut xaalis naam nuñ ko beñ nuñ ko beñ waaye nañu bokk ak ñoom loolu la ñuy am en toute transparence ñun di yëgal ñu gën a am fayda ci suñu bopp franc CFA bi ñu génn ci parce que c'est une monnaie parasite c'est une monnaie coloniale c'est une monnaie inefficace c'est boo xam ne amul benn dëkk muy Comore ci Afrique centrale Afrique de l'Ouest amul benn benn benn dëkk rek boo ne mën nga ci dut baaraam rek ne am na ay performance économique performance économique dafa ñàkk ci suñu état bi dañoo wax di wax à chaque fois ça aussi ñu ngi ko bind ci livre bi état bi budget bi fu mu toll ñaata jeunes ñu am emploi ñaata entreprise lañ créé ñaata bénéfice lañ am Sonatel yoo xam ne ñaata bénéfice lañ am waaye la poste gis nañ ñim def meloo l'ONAS bëgg nañ xam aussi le port de Dakar dañoo war am transparence comme xaalisu askan bi la que les ressources publiques soient gérées pour les priorités nationales en toute transparence loolu nag la ñu soxla rek ne loolu mooy livre bi mais incha allah c'est un programme dëgg la avec des dynamiques waaye nag les solutions sont là lépp lu ñu am njëriñ bitim réew nañ ko def bu ñu tëj suñu frontière déedéet nañ ubbeeku nañ ubbeeku pour des questions de sécurité et aussi pour dëkk boo ubbil sa bopp da ngay jaay sans problème waaye soo ko tëjalee sa bopp moom du nangu nga jaay ay produits loolu aussi solution la. non buntu bi amaguñu candidat pour une raison simple il faut que le congrès désigne un candidat et l'investisse ñu ngi ciy liggéey ci processus boobu incha allah avant la fin d'année man je ne peux pas un candidat parce que chez nous kenn mënul ne fëgg sa dënn ne man la loolu amul ci bunt bi loolu am na feneen fu xew mais loolu amul ci ñun ñun ñu am carte de membre war na leen carte bi sànq ma leen ko ngeen gis ko ñu am carte de membre ñooy waxtaan. ñu am carte de membre yi bëri nañ c'est des dizaines de milliers ñuy dajee waxtaan ne diw kat doy nañu jikko bi xam xam bi compétence bi loolu nag suñu ne diw la ñu waxtaan su ñu ñett la wala ñeent ñu waxtaan ci suñu biir mais tant que loolu amul on ne peut pas parler de candidature yéene nag am na ñaan am na waaye li ëpp solo mooy ki ñu tànn waaw parce que euh, ay préalable la xaar ñun nag ay nitu jaloog lañ d'ailleurs ñu ngi appelé un dialogue un dialogue sincère un dialogue profond sur valeurs du Sénégal les valeurs citoyennes mais dialogue bi ñu gis dégg ko c'est des arrangements citoyens de peut-être 2 à 3 pour cent parce que les partis politiques mais moomuñ ñu ils ne représentent ils n'ont pas beaucoup de militants ils représentent peut-être 2 3 pour cent maximum 5 pour cent et le vrai dialogue doit avoir lieu avec les vrais citoyens sur les sur les questions mënuñ xaar nag à 250 jours des élections nga xam ne président bi jeexal na dem na il n'est pas question mënul nekk amul la question du troisième mandat est, est pas un sujet c'est pas un objet ñun duñ ci waxtaan du sujet lu nekkul sujet nag duñu ci waxtaan léegi nag sur ces questions la tant que amuñ une déclaration solennelle du président de la république bu wax ne leeral ne la mu waxoon engagé ñu ci bind ko ci téere dëggal na ko ñun mënuñ bokk ci dialogue